maanaam euh, les secrets de la défense nationale wala secret médical wala secret professionnel xam nga. Mm-hmm. donc dafa am ay limites. maintenant naka lañ koy sanctionner est-ce que dañu war a nit ki wala dañ ko war a teg ay daan ci wàllu xaalis. parce que débat boo xamante am na aussi devant la cour africaine des droits de mm-hmm. noonu dañu jàpp ne kenn warta jàpp nit yóbbu ko kaso parce que dañ ko reproché abus liberté d'expression kooku cour africaine des droits de l'homme na ko nee na bépp loi bu tëjlu nit kaso ci loolu dëppwul ak droit de l'homme donc il faut que ñu xoolaat aussi mooy yi ngeen di wax rek la dépénalisation des délits de presse d'autres disent la déprisonnalisation am mm. yooyu am nga même bu ñu topp aussi wala ñu teg nit ki yóbbu ko kaso. ñu teg ko ay sanctions pécuniaires. voilà euh, yu mel noonu voilà alamaan ak yooyu. voilà donc daal seetlu nañu daal euh, ci temps président Macky Sall ñu bëri ñu jàpp soit ci manifestation wala boog ci ay kàddu yoo wax moo xam dans les réseaux sociaux moo xam ci rajo moo xam ci meeting moo moo xam fan ak fan la ça aussi c'est des choses. qu'on a observé oui. donc il faudrait aussi que euh, peut nouveau pouvoir aussi puisque ñoom ñoo nekkoon victime yu loolu surtout ñoom itam ñu baña a mhm. ci loolu ñu xam ne aussi démocratie dafa laaj contradiction mhm. xam nga dafa laaj ay contre pouvoir parce que y aura une nouvelle opposition boo xam ne bu taxawee ñoom ni ñu taxawee ñoom itam mhm. ñu tenter ña leen ñi doon def ñu def loolu parce qu'on les a amenés parce que dañu convaincre nit ñi majorité sénégalais yi que dëkk bi toll na foo xam ne dafa laaj rupture. Mm. dafa laaj rupture maanaam lii woon woon ni mm. loolu lañu fi ñëwee loolu la ñu nit ñi nit ñi ànd ci majorité bi ànd ci. Mm-hmm. bon je rappelle aussi que ñoom 54 pour cent moo leen fal. Mm. donc mën na jàpp aussi que y' a 46 pour cent yoo xam ne ànduñu ak ñoom. sans compter nga xamante ne ñoom. ci cent pour cent yi dem wootee noonu. pratiquement ñooñu peut-être ils représentent peut-être la moitié de l'électorat. parce que l'électorat c'était sept millions trois cent. déjà population bi yëpp dix huit million la. ci mm-hmm. dix huit millions yi sept millions trois cent ñoo bind pour dem woote. te sept millions trois cent yi dem bindi woote peut-être quatre million je sais pas quatre millions cinq ñoo dem woote. Mm-hmm. ñoom ci am ci cinquante pour cent. donc certes ils sont majoritaires mais. c'est une majorité de la minorité. Mhm. électorale parce lu ëpp wote wuñu bindu wuñu déjà. Mhm. ñi bindu tam demuñu wote. Mhm. donc il faut toujours relativiser. da nga maam booy jël ay décisions booy apprécier mais nag clairement nag ñi demoon wote nag majorité bi ñoom lañu jox. loxo lañ jox seen confiance ni dëkk bi ni muy doxee doyu ñu dañu bëgg ñu indi leneen ñu indi rupture ça aussi il faut clair ba bon peut-être sur ces questions il faut que les gens aussi jouent le jeu démocratique c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui nous avons un exécutif élu à pour cent n'est-ce pas mais nous avons une assemblée qui n'est pas la majorité parlementaire qui appartient à l'exécutif. Du régime actuel. Du régime actuel. Donc la majorité est une majorité en fait, on va dire d'opposition. Mm. Parce que c'est, ce sont les gens qui sont battus. moo tax d'ailleurs ñu bëri jàpp ne assemblée bi dañu ko war a dissoudre forcément pour aller vers des législatives anticipées. bon pas nécessairement xam nga on est en démocratie. moi je me rappelle en situation bi moo fi amoon. Mhm. quand le président Wade a gagné l'assemblée était socialiste. Mhm. en majorité. mais Ablaye lépp lu mu indi les gens ont joué le jeu démocratique. ok xam ne ba il a été élu. il a la confiance des populations. Mhm. wootal ko budget lépp lépp loi bu mu indi peut-être dañ jëm amende et tout ça mais. après daawuñu def blocage systématique waruñu bloqué waruñu bloqué dañu war a jouer vraiment le jeu de la démocratie okay. le jeu républicain le jeu institutionnel président bu ñëwee le gouvernement bu bees bu ñëwee def déclaration politique générale écoute il peut commenter machin mais bu ñuy jéem a def motion de censure ça ne sert à woon nañ ko fi day am na jaru ko waaw c'est pas démocratique bu fekkee ni itam indi nañu seen budget sumet ko man nañu débattre lu ñu mën a amande amandé ko suñu amandé wul itam ñu xam ne lii lañuy soxla pour liggéey ñu jox leen ko am nga bon parce que on ne peut pas aussi non maigre moyens yi ñu am tout le temps di ko yóbbu ci ay élection xam nga aujourd'hui ñu bari naan woy à partir de septembre président am na légalement pouvoir dissoudre assemblée dem élection mais est-ce que bu demee élection est-ce qu'il est sûr de gagner parce que les législatives aussi c'est autre chose nga c'est une autre réalité. c'est mais en général Sénégal bu ñu la joxee mais mais mais mais mais d'accord. mais mais ici il y a un décalage. est-ce que est-ce que entre-temps. les populations. Il y a eu des gestes xamante ne gën na convaincre nit ñi que ah ils ont bien fait. foofu d'ailleurs lay jaaree laaj la sa appréciation ci seen premier acte yu ñu posé ils ont fait plus d'un mois à la tête du pays def nañu la ëpp weer est-ce que yow gis nga ne ñu ngi ci yoon rupture bi nga doon wax sànq déjà parce que bokk na ci li tax nit ñi gën leen a jox bopp on avait besoin de rupture bëggoon nañu affaire yi changer. gis nga ni ñu am nga am nga man nag ci métier yi que dañ leen di jox un délai de grâce de trois mois ah. trois mois yoo xamante ne vraiment du ma leen critiquer. ok ngay observer rek. dama leen di observer mais ça ne veut pas dire aussi que mënu def ay remarques. Okay. pas des critiques mais des remarques. Hmm. alors li ma njëkk remarqué c'est que constitution dafa ni c'est le président qui détermine la politique de la nation. Le Premier ministre, il coordonne et conduit la politique définie par le président. bu ma gisee ñuy doxal man amuma impression que loolu mu am parce que déjà le président lui-même moi je constate qu'il n'a pas de cabinet en tout cas il n'a pas un cabinet complet man je vois de temps en temps ñu ne woy Mary Teuw Niane directeur de cabinet monsieur Mary Teuw Niane madame Diakhaté directrice de cabinet adjointe bon je crois Diagne Cheikh Oumar Diagne voilà écoute je sais pas ministre conseiller je sais pas ministre chargé des moyens généraux moyens autre porte-parole du xaw ma lan ou bien de la communication digitale bon je sais qu'il y un conseil diplomatique ou des conseils diplomatiques mais bon mais li nga xamante ne le président soxla pour définir la politique de la nation pour moi j'ai l'impression que son équipe n'est pas encore complète